naqari ba tax nga bëgg a jëlaat revanche wala lan mooy laaj bu njëkk bi pourquoi nga bëgg bëriwaat ak Balla Gaye te mu daan la ci ay seconde tontu bi lan la. waaw salaamaaleykum. bismillaahi rahmaani rahiim dañuy sant yàlla di joint bi. et déglu leen ko mu tontu. ayca moo du demee. grand bi di gërëm ñaari waajur di nuyu assistance bi yëpp buñ fi toogee di lim liñ ko xam ñëpp buñ leen doon lim fi la ñuy fanaan mais ñu ngi nuyu assistance bi yëpp di nuyu ñu ma àndal di nuyu suma adversaire pour le premier janvier muy Balla Gaye numéro 2 di nuyu autorités yi di nuyu suñu kilifa yi fekk waaw Balla nag. te gars yi defe naa da nga xaw a juum ci laaj bi parce que bu may bëreeg moom du man maa topp di ko laaj ba suñ ko may taxaw c'est sûr que moom moo gënoon bëgg bëri ak man lamb lay am bëri nañ mu mës ma daan benn yoon mais ba ñuy bëriwaat ba ñuy bëriwaat moom moo gën a bëgg bëri ak man parce que dafa fu mu toll ci lamb bàyyi leen ko mu yeggale voilà defe naa ba ñu bëree ba tey mosuma toog fenn naan nañ ma jox Balla Gaye lamb mooy doxaat ba lamb boole ñu moo du laaj bi boo ko déggee ku la daan ci vingt deux secondes est-ce que yokk na nga jël revanche ay sept ans après pour war koo mën a daan bégaay ay vingt deux secondes ay une seconde loolu du problème lamb la kii ba may daan ak tey du benn am na 9 ans ci làmb presque. Baye Demba jàpp ci waay. Baye Demba jàpp ci waay. ba bëre mu may daan defe boobu vingt naa laa amoon xaw ma vingt ans ci làmb ba tax am na expérience boo xam ne amuñu ko woon. lamb dox s'il te plaît s'il te plaît lamb dox ba tey am luñ jàmm am luñ jàng ci lamb wax normal s'il te plaît maa leen koy ñaan ngir yàlla ngeen déglu ko mu wax normal après ñu mën a wax donc fii ñu ngi fii di pour bëggee leen mais aussi tamit ngeen respecté kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ngeen déglu Modou Lo mu wax ci jàmm ñun ñëpp mën a wax ci jàmm ba merci ngeen baal merci merci Modou waaw damay bamtuwaat rek bëri nañ léegi am na huit ans. du làmb yi dox ba làmb boolewaat ñu war a bëri dañuy wax rek fu ñu jëm war wax waru fa bëri war a bëri le premier janvier yàggatul dañuy ñaan yàlla may ñu tal ak fekke ñun ñëpp ñu fekkee ñëpp yi dañu xam ni ci ginnaaw du tay incha allah jërëjëf mbokk yi li lii la Gaye wax léegi dafa am solo torop gis nga bu nu dégloo dinañ yóbbaale dara waaye bu nu dégluwul du nu yóbbu dara te ñaar ñuy tey dañ fi ñëw pour leeral lu leer loo xam ne dafa war a leer ci ñoom ñaar ndaxte rivalité bi dafa am ñu doon ay champion ku ci nekk yaakaar nga ni yaa man sa morom kon bu ñu ñëwee ba fii danoo bëgg ñoom ñaar ñuy wax ak ñoom.